Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wa barakatuh Waki juli di Waki sopayi Nginu nyep Di nyana nyep jam Di nyana kaddi jam Yalami buram jam dolin jam Jam bokki juli di ñu bàyyi xel rëccu fekk na day wees àdduna manees na ko dund di bàyyi xel li nga xam ne mooy rëccu ana lan mooy joxe rëccu mooy jëf jëf joo xam ne jëf ju ñaaw la te dem na te dutu dellu si ana lan mooy joxe riccu génne kàddu gu ñaaw mu dem te duutu dellusi ana lan mooy xatal ak dund muy jëf ju ñaaw ak kàddu gu ñaaw day xatal dundu doomu aadama mbokki jullit yi ñu fàttali suñu bopp waaye ñu fàttali leen rëccu day dina jib sax fuñ ko foogewul ndax jort ne sa lépp lu rafet la nit ki foog boppam ba defe na du juum mbaa am xelam moo xel ya ca des mbaa la muy def dafa gëm ne moom léppam lu baax la kooku fu mu toll di réccu waaye ki nga xam ne xol bi ci boppam dafa setul amul daray gëm yàlla kooku fu mu toll day réccu mbaa ki nga xam ne day ñaaw njort di wëlbati ay wax kooku fu mu toll day réccu mbaa ki nga xam ne day defe ne lépp lu mu def rek bu jàllee bu waxee jéggaloo tuubaat daldi na loola moom jeex na jégglu naa kon bakar ya faxasu na maa ngi nekkaat à fekk na déedéet am na bakkaar yoo xam ne nee naa leen nit ak nit rek ñoo koy baalante ndax ñetti tooñ yi képp ku ko bay xel danga xam ne tooñ doomu aadama amul njariñ muy tooñ sa bopp tooñ yàlla wala nga tooñ nit tooñ sa bopp mën naa deñ tooñ suñu boroom mën na laa jéggal waaye tooñ sa mbokk jullit kooku moo dul deñ kon ñu bàyyi xel mbokki jullit yi ne rëccu ñu bari ci doomu aadama yi tey rëcc ci boppam moo leen sonal ba seenu seenu dund dematul ndax naqaru xol wu ñuy doxe mbaa ñu di ko tëdde mbaa ñu di ko xalaat ndax jëf joo xam ne dem na bu yàgg te duutu dellusi waaye ba ñu koy def ànduñu ak seen sago ñu ne àdduna day dox bàyyi woon xel ne lii may def day day dem te du dellusi te saa bu ma ko fàttalikoo bëgg ko indi effacé ko fekk ne déedéet loola mënatu te nekk waaye fa lay sax ci sa dund boo wanee ginnaaw say mbokk ak say sët ñëpp di ko dund loolu mooy réccu nga dugg ci sa bàmmeel fekk ko fa mu toog fa di la ngay réccu mbokki jullit yi ñu bàyyi xel réccu ci dundu doomu aadama li ci soreel nit ki mbaamu di ko ko bañ a def loo mooy gëm yàlla te du ko bokkaale ak dara mbokki jullit yi ñu xam ne lépp lu doomu aadama di am ci kaw suuf yàlla noppi na ci bu yàgg mbokki jullit yi ñu xam ne lii ñu bokk ci biir kër yi ci mbokk yi ci mbedd yi ci famille ñu xam ne lu yàlla bind la ci nit ñi ba pare te kenn ku nekk du la jox mukk loo àttanul ku nekk day seet ba nga xam ne li àttan na ko ma jox la ko te lu mu la jox mooy li gën ci yow te saa boo ko fa bàyyee danga nga dund fitna da nga dund rëccu ci sa àdduna ndaxte lépp lu mu la jaral ba tax nga def ko la nga fa bàyyi rek moo fay am mooy li borom bi bind mbokk yi dara waralul jëf yi ñaaw yi ngir ne dundug doomu aadama la dundug doomu aadama lu tuuti la te bala ko doon xam dee dikkal la ba seen liy dee day mel na yow dundoo benn bis nga dund wala xaaju fan te fekk na am nga juróom-ñaar fukki at mbaa juróom-ñetti fukki at waaye boobee nga jëmee mag yaa ngay tuub yaa ngay jéggulu yaa nga delluwaat waaye loola dina dina tax sa digganteeg sa borom suñ boroom jéggal la ndax moom ku ko jéggalu mu jéggal la tamit dëgg ci yow sa bakkaari bopp mën nga koo faxasaale ba mu set moom it waaye lii di nit lañ waaye war a bàyyi xel ndax mooy indi rëccu jëf ci doomu aadama rëccu gu rëy lay indi mbokki jullit yi doomu ada ngi nii siq ak ki nga xam ne moom la bokkal borom kër subhanallah nee na bi muy ñëw boobu man xale laa nekkuma mag moo xam ne xam naa lu bari ci sëy waaye nag fiiroon naa lool ba bëgguma bokk ak sama borom kër kenn sama xarit di ma baab donte loola du sama mbir waaye loolu métti woon na ma méttiwaay goo xam ne jaraloon na ma loolu mu may woo ma wuyu ko ci waaye ku doon dund sama diine la ku ko doon matale ku doon moytu lu bari waaye bisub keroog lépp lu ma defoon réccu naa ko lu tax mooy li paase ak tàggat biñ ma tàggat ak ni ma ci yàgge ak ni ma ciy dunde ak ni ma ko gëme woon dara taxul lu dul riirum àdduna te yàlla bind dalil bi ne góor gu nekk sañ naa am ñeenti jabar ma am ko ne man kenn du bokka man sama borom kër jaral na ma lii ma doon dund sax ma dem defi lu ma ko dindil waaye lii moom duma ko dund ànd ak xaritam boobee dem defi ko nee na bi mu demee ba ñëw mbokk yi ma gis commencé mu commencé di am ak moom problème ba yàlla dogal mu daal di ko am moom waaye ba léegi mbokki jullit yi maa ngi réccu loolu yi ma defoon ndaxte dem naa ba màgg dem naa ba jëm mag bi ma jëmee mag dama am feebar feebar boobu maa ngi tëdd mënumaa jóg te day ñëw di ma seet si day ñëw di ma liggéeyal ci sama kër ndax kóllëre guñ seqoon ba mu tasee moom gëmul ne maa ko fa jële tàngaayu boroom këram te fekk na ñoo ko xabtal ba loola génnee ko waaye bi ñuy dem moom gëmul ne man la moo tax jàmm rek lañ seqoon bi mu déggee ne feebar naa day ñëw kër gi di ma jàppale mbokk yi saa bu ma ko séenee di jooy damay jooy di ko nëbb waaye maa ngi tëdd ci sama njëgënaay rëccu lan moo taxoon tey ma def lii kii waaye naka laa ko koy waxe mbokki jullit yi nan laa ko koy baaloo mbokki jullit yi waaye bu balante àq bi ñëwee dinaa ci profito balu ko àq ndax ma jóg mu leer ma ne àqam bokk na ci sama tëraay bii ndax dund gu metti gu mu dund ba tey jii yi muy dund yépp ci man la sabab bi jóge kon ñi bàyyi xel mbokki jullit yi di xam la ne àdduna du kër ab jaar jaar kër jaar jaar la ci bépp soxna ci bépp borom kër mbokki jullit yi kii nag góor la nee dama bëggoon ndaw si lool ngoroog moom lu yàgg waaye ay mbokkam soppi nañ ko ba mu war ma ma dem def ko loo xam ne duutu am boroom kër mukk yàq àddunaam mbokk yi maa ngi tey am soxna ba am doom mënatuma dindi la ma dencoon mu def ko noonu wër naa ko ba sonn fi ma ko defoon mënatuma koo gis ngir ne fi mu toll fi mu ne nii yéene naa ko mu am boroom kër akum njaboot réccu naa lépp lu ma defoon waaye ana nan laa koy dindee tey jii di xool muy gën di yokk may wër fu ma ko defoon te su ma ko gisoon su ma ko dindee mu jeex waaye bëgg gu ma ko bëggoon moo ma yóbbee woon lii ndax loolu sama cër la déedéet bu doon sama cër la suñ borom jox ma ko waaye booba maa ngi ci sama digg ndaw gisuma dara lu dul xale bi waaye tey ba ma demee ba xam ne mënuma koo am dama ko yàqal borom këram boobee ñu ko doon may waaye yàqal ko nag ci dundam lum dul dabooti may xalaat te deewaguma xam ne man mii su ma deewee fa ma jëm leer na ma ndax ma bokkaale ak suñu boroom maa def lu neexul suñu boroom su dee sama diggante sama boroom day am na yaakaar na su ma jógee di jégglu ba ba may faatu boroom bi dina ma jéggal waaye dadul sama diggante ak sama boroom sama diggante la ak nit te la ma ko def doon lu yàq addunaam ma jël addunay jaam boobu te yàq ɓay jennde ko adduna maagini tawi diko reccu mbokki limay am am sohna akum njaboot daanaka dunduma ci dara lu neex sama soxna yàlla féetale ko mu muy nef bari doom kooku su fekkonte de mën naa yëkkati doom ji dem may ko waaye wéradiwul lool de waaye dafa am lu jaxasoo ci am xelam mi ngi ci këram góor laa ko dëddale woon jëmmi góor tey du gis góor mbokk yi maa ngi ci sama lalub réccu bu fekkoon su ma ñëwee wax ko ko mu baal ma waaye def cee boole xel mi ci boppam moo dem ma di ko xool saa buy génn dama koy dab di ko jëndal ay lekk di ko jox aka neexoon ma mën a wax mu wuyu ma kon dinaa ko wax li nga xam ne moo xew waaye xoolal sama dund gi tey dara teguma ko lu dul lii mu metti lool mu gêné ma lool mënuma liggéey ndax kii mënatuma jaamu yàlla ndax di ko xalaat ndax bàkkaar bii ma wër ma jàkkaarloog moom kon mbokki jullit yi ñu bàyyi xel ci bàkkaar yi nga xam ne mooy yu mag yi amul baale lu dul ne danga toog fii ci àdduna yow ak ki ko seqal nga leeral mu baal la bu amul ëllëg yowmal xiyaama bu la ko baalul danga koy fay ndax mbokk yi fay googee bu jëlee la nga moom lépp ci lu baax jox la léppam lu bon foo jëm jahannama yal nañ ci yàlla musal lu ko fi jaroon lan ca dund bariwul ci bànneex matul ñaari weer mbaa ñaari fan mbaa ñett te tey na la loo xam ne du too ko ci kaw suuf ndax borom bi subhanahu wa taala daf ñoo bind wàccee ñu ci kaw suuf si waaye bàyyi loo ñu xel ne lii di diina ji ni la ci jullit bi di doxe lépp loo xam ne tere na ko nañu gëm ne ku ci nekkit nekkoo ci lu lay jariñ waaye ci lu lay lor nga ne lépp loo xam ne lu ñuy jariñ la képp ku ci nekk gëmal ne yaa ngi defar sa àdduna ak alaxira mbokki jullit yi ñu bàyyi réccu ki nga xam ne soxna la ci biir kër nee na maa ngi wujjeeg sama mbokk mi ci biir kër gi waaye nee li ma ko teg ci ay nattu ci biir kër gi te yoo xam ne man maa ko doon def di ko yàqal di jël ay mbir di ko yóbbu ba néegam ñu di ko fa gise ma di ko tuumaal ku ñëw ñu ne ko yow la te fekk na man nii la mbokki jullit yi waaye mënuma supporter jëmm ji may wujjal waaye yàq naa ko ci fi may dund ak moom ba mënta dund jàmm ndax mënuma woon a def lenn lu dul loolu ndax ñu may ma jàmm mbaama mën a toog ci kër gi waaye jëmmam génne woon na ma waaye xelam yeggoon na foo xam ne mënuma woon a dund moom bokkoon na ci ki ma nar a yàqal sama dund ma far ko yàqal dundam waaye yàqal dundam googee teewul tey jii loola yépp ma ko doon tuumaan dem na ba ba wëlbatiku waat ci man feeñ lu mu jooyoon maa ngi koy jooy te noppeegu lumu lu mu tëddoon ci néegam ñu ber ko ngi ma ber ci sama néeg bi te xamaguma kañ lay dem mi ngi dund nag moom lu neex lu raw lu neex loole ma defoon ne moom laa doon dund àdduna day tourné ñu bàyyi xel ne képp koo xam ne yaa ngi ci àdduna bàyyil xel ne loo jooyloo sa mbokk jullit bis dina ñëw nga jooy ko te du jeex te moom bosam jeex na ndax bu ko yàlla jeexalee mu jeex mbaa yëg ngeen ne loolu yi ngeen di def ba di ci am ndam mbir la rek dafa neex suñu boroom waaye day tege di teggee waaye ñu ngi koy ñaan lu mu lu ñu teg rek yal na ko yàlla teggi yal nañu yàlla musal ci xolub ki ñaan yal nañu yàlla musal ci xol bu yàlla nekkul yal nañu yàlla musal ci xol boo xam ne nii dafa fees dell ak bokkaale yal nañu yàlla musal ci ki nga xam ne daa jóg ngir yàq mbokk jullitam yal nañu yàlla musal ci ki nga xam ne bëggul daray jàmm waaye yàlla nañu yàlla may xol bu fees dell ak gëm yàlla ñàkk bokkaale borom bi kenn ba keroog ñuy génn àdduna ñu bàyyi xel ne nit ñi saa su nekk ñi ngi dem waaye saa su nekk ñi ngi juddu waaye saa su nekk ñi ngi rëccu waaye nekk ñi ngi damu ci lu baax te xam ne lu baax rek moom nga mën a def am ci ndam moom ngay fàttaliku di rëccu lu teema def lu bari lu teema def lu bari ci lu baax loolee daa nga muñ lu metti tey muñ nga jeex na te ma ñëw na danga naan lu tee ñu tegoon ma lu bari ca ba muy metti moo tax nañu muñ te yàlla rekk tax jaam bi amul lu dul muñ lépp adduna muñ a koy gérer léppi àdduna muñ koy gérer julli gii ñuy julli boo muñul doo ko def yenn saa yi mu fekk la ci situation yoo xam ne muñ rek mooy tax nga dem defi jikko mbokki jullit yi nañuy ñaan di julli di bari lu ñuy ñaan di ñaan borom bi mu ñuy may li mu yor daf koy séddale rek waaye dafa bëgg jaam buy di ko ñaan ku nekk ci ay métit métit ku nekk ci sa biir néegu sëy jaaxle lool ci sa borom kër mbaa ñu dëddale la ak moom mbaa sa njaboot ay teg teg nekk del julli di bari looy ñaan sa borom subhanahu wa mu génnee la ci loolu nga xam ne moom nga nekk nga yëg ne yow jullit bi kooku rek mooy ki la ci mën a génnee amul keneen koo mën a yaakaar ku lay génnee ci loolu ku dul borom bi subhanahu wa taala mbokki jullit yi réccu du wees waaye delluwaat arriéraat ci ñi nga xam ne defuñu ponk yu diis yooyu muy teg-teg yu diis yooyu muy yàq àddunay doomu aadama ba jaral tegtal ya nga defe ko nang ko waxe di doomu aadama simple xëccoo lu dul alal mbaa kër mbaa oto buñ la dig mbaa palaas tey jii nga di ko rëccu mu ànd ak ba ci sa biir bàmmeel nga toog di xaar kooka ba keroo yow ma xiyaama loolu rëccu gënu koo rëy te bu boobaa toog xaar rekk waaye foofu amul baale kon yal nañu yàlla may sax ci njubam gi mu rey ñu ci yar ci njaboot gi ñun ñëpp mu delloo ñu ci ba ñu delluwaat ca moom waaye mu yéex ci jaamu ko mu yeex ci mu ñuy nangul suñu jaamu yàlla mu yeex ci raxas suñuy xol mu yeex ci waat mu yeex ci dind lépp lu ñaaw lu ñu nekkoon mu yeex ci sax ci li nga xam ne mooy ak njub di dëgg yal nañu ko yàlla defal defal ko njaboot gi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu masha allah toppee nu ngeen def mbaa si jàmm alhamdulillah ñi ngi nuyu ñi fi ñep ma masha allah di nuyu borom question bi topé fillah di ko ñaanal jamm ndeysaan di ñaanal ñëpp jàmm ah, di wax ni question bu am solo la ma ah, masha allah li ñi wax ci fofu de moy ne dañ leena leralal leeralal ne leen am nay toñ yo xamni man nañ ko jéggalante ci ak la dafa am toñ yu mag yoo xam ne boroom bi da koy tere muy lu mel ne yàqal nit ki àdduna mbaa ak njabootam mbaa dëddale koog boroom këram muy dund lu tar mbaa nga xañ ko sax li nga xam ne ay mbir la yoo xamante ne ak xam la lu mel ne nga tàqale ko ak boroom këram walla sax macha allah nga def ko loo xam ne dutu bëgg sax sëyam duutu bëgg sax góor te loolu yëpp nit ñi dañ koy def walla nga def ko loo xam sax day génn kër ga rek dem yoonam maa nga teg ko feebar mu nekk ci kaw lalam nga ne kii kat xaaral su ma ko defee lii bu soobee yàlla duutu dox tànkam yooyu day toog wala naa ko def naa nga tàqale ko biir buy metti boo xam ne du tàqale ko moom mukk te fekk na fa nga jaar ba def ko yow xam nga ko yooyu yëpp ay façon la yoo xamante ne nit ki ko yor ki koy def moom loola loo séq la ak doomu aadama nga def ko ko xamul kan moo ko ko def mu dund ci naqaru àddunaam yàq ci àddunaam bëggatul dara ci àddunaam kooku boo toogul jàkkaarloog moom wax ka la nga def balu ko àq ja tax nga di ko balu nga wax ko ne ko lii laa def te àq la baal ma mu ne la baal naa la ci xol bu sedd guy ci bu ko attanee ak xolam bu fees dell ak gëm yàlla xam ne kat nit ka la seet ba gis la wax la loola bu fekkee attan nga ko ndax dafa am na teg-teg yu bitti yoo xam ne am na xol yoo xam ne duñ ko bale boo leen ko waxoon dañ naan la baaluma la am na nag ñu ko yàlla may waaye bariwul de ndax yooyu teg dafa dafa dafa tar maanaam loolu yàq dundub doomu aadama kooku moom boo leen jàkkaarloowul nga ne ko baal ma àq mënu la baal naa la kooku du masa deñ ba kere yoo màq yaa baal ma àq ji ñuy wax ci ginnaaw tabaski yooyu dindiwu ko de yu mag yooyu déedéet ñuy balante ak yu oyof yi rek ya yi ne ci kër yi nga xam ne bañ ak bañ ak lay dindi way yu mak yi nga xamne mom mo ne ci bir mbir yi mom bok ci dundu gi yàqal la lu bari lolu face à rek mo koy dindi moo ñetti tooñ yoy tooñ sa bop lolu mën na deñ tooñ sa borom mën la jéggal waye tooñ sa mbokum julit ci xéti yu mag yi jakarlo mom rek ko koy dindi nga balu ko ko fi ci aduna nak lañuy la nit ñi di wax ñu wax ko dalay metti métti la bëggatoo dara ci sa àdduna yowit yàqal la sa àdduna ndax yaa wax mbir ma dund dund googu faatu sax moo gën yóbbaale ko waaye fii de gisuma kuy ñëw ne nit ki yow mii sa jëkkër ji maa la taqaleeg moom wala sa doom ji feebar maa ko teg lii ah loolu ña koy def bariwul dañuy lànk kon nag loola moo tax borom bi génn ci diggante nit ak nit liñ leen di xamal daal mooy képp ko xam ne yaa ngi ci sa biir néegu sëy nekk ci biir kër def loo xam ne yu mel nii la yëgal ne boo jàkkaarloowul ak nit ki du deñ ëllëg yomal xiyaama dana la taxawalaat nga fay ko ko foofu nag amul baale lu nit baax baax baax baale amu fa waaye baal maaq yi moom du faxasul yu mag yi de yu ndaw yi rek waaw am na ci yoo xamante ne bii daal da ngeen di toog balante ko fii te defe naa ne suñu jamono ji ko fi yàq diggante nit ak ñëw ne ko man mii sa jëkkër ji nii mu mel man mii maa la ko tegoon bu la rayul wala deful la leneen wala nit ñi ñu la leneen loola sant laa tax kenn du ko wax waaye jar na nag di essayer ba xam nu may jaare ba wax ko ak lu ma ci man di jële rek fii àdduna la moom ma àllaaxira kon nag mu ngi noonu kon soxna si question bi mooy lu mel noonu baal ma ay àq yu mag yi daal moom jàkkaarloo koy dindi yu ndaw yi nag man ngeen ko faasante ndax bañ ak lamiñe dekk ku ne man nga baal sa morom bakkar yi ndaw yi waaye yu mag yi nga xam ne moom day yàq àdduna moom jàkkaarloo dong moo ko dindi nga ne maa def maa la def lii maa ngi ñaan nga jéggal ma mu jéggal la defu ko bakkar bi yaa ngi moom ba kera ngay dem ma qiyaam yàlla nañ ci yàlla musal te musal ñu ci li koy def ndax daray àdduna jaru ko daray àdduna jaru ko ñun jullit yi ñun dañoo war tal suñu bakkar yi ndaw yi ñuy xeeb yooyu lañu war tal ak nit ñi nga xam ne ñu ngi dajeeg moom bakkaar yooyu nga xam ne yaa ngi koy def nit ñi suñu làmmiñ yi nga xam ne bu bët xoolee làmmiñ wax kooku doy na sëkk ab jàmm di ko xalaat ndax jëw googu ngay jëw yow doy na la sëkk ak barke noo koy lijjantee ak sa yeneen rënk-rënk yoo xam doomu aadama moo mel noonu nga boole ci nag ponkal boo xam ne birig la moom booy booy yenuwaale yóbbu yàlla nañ ci yàlla musal asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullah wa allah mbokk ak ngeen def yéen a ngi ci jàmm yal na yàlla dolli jàmm wallaay sa kàddu gi dafa daw yaram ndax liñ ci yëg mooy moo mel ne danga koy dund waaye ñu la ciy wax rek muñoon te muñ loo ko suñ borom subhanahu wa taala moom bu ñëwalul feet dina la ñëwal fële ndax fii moom ku ko fi lebit da ko fay fañ jëm ku ko nanguwut ñëw leeral da ko fay fee ñu jëm waaye dama la ciy wax ne am na koo xam ne kee lii du nettali dëgg yor na doom ji mu am dem ba am fanweeri at mënta am jëkkër ndekete li tax garab gi ci kër gi ci lañ ko def te kooku yaayam coono bi mu sonn moo yor yaayam xale boobu moom mooy liggéey di jox yaayam lim koy dimbalee yaayam tamit di liggéey ñu boole ñoom ñaa yor seen dépense seen papa nekk ku néew doole waaye bàjjanam bi bokk baayam day ak baay moo ko ko def ndeke benn bis ñuy xuloo mu ne ko yow bàyyi naa la li nga nekkee rek ku ñëw dem te maa ko def lima def mi ngi ci kër gi fii déjjati wuñ ko da yow doo fi jóge xale bi fu nekk yaayam ndeysaan jooy na ko fa sama doom ju du sëy waye gis ngeen ba yalla jeexale dab bi njabar go gis day am day am jeexital day am jeex bis ba muy jeex garab gogi yekati wuñ ko de dajji wuñ ko de waye da bayyi lepp ak yalla ku ñew ne ko muñal bis bu ko yalla jeexale am nattu la ci yow day jeex xale bobu bis biñ koy tak bajjan bobu da genn biñ ko takke bam ñew ci guddigi daawul toog daa mu joon du toog ci kër gi mënatut a lekk ci lekk kër gi mënatut a toog ci kër gi di wax ak kenn ci kër gi bu xëyee bu sangoo génn na ca fajar bu duggsee day bàyyi ba nit ñi tëdd muy doog a tës ci natt boobu la dund mbokk yi moom moom moom ba mu tëdd feebar kañ la tëdd mooy bis biñ mayee xale bi ci suba sax la doon génn ab oto xoma moto fel fel ko bis boobu la noppee xam lan moo ne ci kaw suuf ci àdduna bis biñ mayee ndaw si ca suba sax ca lañ ko yóbbu moom hôpital bim daanoo siddit dañ na sidditu bopp bi mu am lum laal loolu amul luñ koy faje boobu ndekete yow loolu mooy tëraayu faatoom ca la tëdd ca la tëdd ci kër googi mujj na moom xale boobu ak yaayam ñoo ko daa defar defar néegam ba set yaayam a daa ràngu raxas yépp day tëdd di woote pour ku ko defar xëy suba ba dix ba onze heures kenn laal la gisoo benn doom bu nangoo nekk ak yow mbokki julli gi ñoom ñoo ñi mu doon waxal ñoo mujj ñoom dong ak moom a des ca kër ga yaay xale bu jigéen boobu sonn ci moom di koy yëkkateeg di ko tëral di ko sang di ko defaral yi yéreem àdduna sépp teg ci seeni bët mu yuuxu ba ni muy faatoo mbokki julli di def lu bon amul njariñ yalla nañ ci yalla musal tay xale ba nga ne tase ko xamne ne bi ay wajuram nekkuñu fi amul bu gor wala bu jigen waye yalla suñ borom tagat nako ko ba tey jii moom doo nga kërëm kër go xamne ko tabax ba muy yegg mu ko di wër mom gone go xamante ku yaru la li leen tassale matul ñetti fan tay ma ngay sey am jàmmam ak salamam ana kooka tey dem na fekkewu ca dara lan moo ko fi jar waaye ndeyam ja da koo muñ de demul cib sëriñ nekkul di takk ak naan jël xaalisam financé amul dara di bay bay jëlub xaalis waaye yàlla att na ëtt ba boo fa demee kenn new fa yaayam joojoo fa ne gone ga sëyi na ma ngi ca jàmmam ma ngay dimbali ndeyam tey ji ndax ka mu yor yàlla di am na lum ko dénk tës tës yéen nekke woon ak méttit wa nga xam ne ndeyam met nekke woon na ko tey wàcc na ab goroom lay xaar waaye xaaratul keneen tey dem na bàyyi ko fi kër googu dem na tey néeg boobu tëj nañ ko dañ koo delloo tey dem na bu ñëwee ay gan lay ubbi du ko fa dugal mooy bale mooy raxas mooy defarum këram ba mu yegg mu lal basangam tëdd kenn du na ko yemal fii sa tànk bi ak wax yu métti yi nga xam ne daanañ ko ko tàbbalal kaddu gu ne dégg na ko ñëpp xam métit bi ñëpp na ko muñal waaye musta bouger te tay ma nga noné tay mom dong keureum gis ngeen dé du ay tiaxaan fii ku fi nek di feugub dënd mbaa nga jël doomi jambour def ko lo xamantene ne yow ya nga cey nguuri xàqataay te nan ñaw bis dina ñëw tay ji bo démé ci sa bammel ba da nga ne suma né won bëreet ba démat aduna ba diw baal ma li ma nek ni kon duma ko gis waye kenn xamul lamuy dund fofu waye misal mi fi yal nañ ci yalla musal kon mbokk yi nañ leen delo si xel yi te bàyyi yenn tooñ yi ba pare ne dangay ngay faxasu da gis sax ku rey nit ne naa dem màkk da ngay gis ku rey nit ne naa dem màkk jéggulu ji ma demee faxasu déedéet foofa tamit boo demee dara du faxas loola loola moom face à jàkkaarloo ci àdduna wala nga dem àllaaxira fay ko rek yal nañu yàlla musal ci yooyu xool